ñu ñëw ci ndaw si ndaw si ba muy dem Tida ba muy dem euh, soirée Bambaly sekk nii la solo jigéen dina solo nii kii ku ko xool xam ne caga mu ubbi la fal ndeyam la jigéen dina solo nii yéen lay laaj ndax jigéen dina solo nii xool leen Tida ni mu solo kii caga la weenam yëpp mu baccal ko ci àll bi Tida ni ma la wax gaa yi ñëpp ko kat. ñi ko katt ñoo bëri man ba ma nekkoon palaasu Bàmbaali mu woo ma ne ma yaa ko katt ma ne ko katt mu ko parce que ñi ko biiral ñi ko katt ñoo bëri biir na léegi yàq na biir ëmbaat ñi ñam ci koy bi moo bëri ci lëf li ñi ko katt moo bëri xale bi xoolal da daan taxawàllu amul fu mu dëkk nekk ak benn copain cinq mois six cinq mois mu nekk ak copain bi ci biir kër gi xam nga lan moo tax copain bi génnee ko parce que day dorogewu tiddaa bi day dorogewu di màndi ku nekk di xam nga ko day dorogewu di màndi di naan di màndi di dorogewu di jël bu weex bi ay volet lépp lay jël kii day ubbi lëf li rek gay yi di kat xoolal lii lii jigéen ku baax dina ko solo lii jigéen ku baax dina solo nii kii doomu xaram la yaay ji boo ko déggee xam ne cagala ñu bari ñu ngi naan waaw artistes yi danoo yaakaar ne nangam nangam kon gis mën na loo kat kun fi kat yaa ubbi sa data kat la fii ku fi yaatal say tànk ràcc sa lëf ba mu mel ne géej gu jóge si Ziguinchor dañuy dugg ci biir géej gi jël gejj gi ñoom mbaxal ci wala ñu togg ci dëxanu yàpp yaa tooñ sa bopp ku fi ibbi sa lëf ñu katt la yow la li ngeen bëgg dafa katt tuunu ndayem yomb dem leen ngeen liggéey yi leen ngeen liggéey yi moomu leen nit ñi waaye katt leen seen nday waayoo jàpp seen lëf yi di pasar pasaree rek léegi data valeuru data yàqu na sama carax yi may dayee di ko sangoo sama caraxu duus yi sama caraxu duus yi sama sama ca sama caraxu duus yi sama caraxu duus yi xam nga ne bu demee ba ba ëpp valeur euh, euh, ba ëpp valeur lëf ci kër xam nga ne data valeur am na dama ne la sama sama sama caraxu duus yi may dayee lii may dayee di ci sangoo boo demee ba mu ëpp valeur u ba valeur u ci kër carax ëpp lëf kër xam nga ne data valeur am wàcc na waaye waaye damaa bëgg ngeen nekk ay nit bu ngeen jógee naan waaw naka nangu doom ji man Bambaly sekk moo ëmbal wala ëmbalul waxulu ma la ëmb na wala ëmbalul de mais dama ne man même bu fekkoon Bambaly moo ëmbal du ko mën a nangu même man bu doon mën a du ma ko nangu parce que koy yi ci dugg ñoo bëri ñi katt booy bii ñoo bari xam nga ne ay mbay ku caa mbay ku caa nga xam ne barki démb laa ko fi kaawoon muy mballoo kooyam boobu di tuur ay xéewal comme que katt na ci keneen ak keneen katt ji kii du kii dof la kii yorul cottu ndeyam alma dafa nekkoon di taxawaalu nekk kër benn copain copain ki génnee ko muy dorekewu mu dem dëkk ak ay xaritam di taxawaalu yaa ngi dégg ñu génnee ko foofu mu dem cité Missa wut fa appartement génnaat di taxawaalu kii cagala la ñëpp a ko kat gars yi yéen da ngeen a war a émissionné benn affaire lan moo tax kii ban ko kattee ba léegi yow kii du nit ku baax xoolal jur doom deux mois nga abandonné ko ba xoolal maanaam nampalul sax doomam. bi waroon lan ko doon jox doom ji mu jur nii nàmpalu ko sax deux mois la ko abandonné yaa ngi dégg ñu yar ko ba mat quatre ans mu doog a génn naan sama doom bàmbaale dan maa kat télé yi ñoo ndeyi am jot ay ñoom góone bala maa dee mu naan bonjour internet Dakar TV waaw nangam nangam tey nag ñu dalal ki nga xamante nii moom la ñuy wax mbirum katt meeg nangam nangam am jot bay bëgg a dee Seneweb boo gisee ami muy ngàppeeku moom tamit bonjour mbokki Dakar Buzz mbokki Seneweb Sénégal xuma lan ak lan ak lan yéen a am jot yéen daal fu ñuy xawee sutura rek kii doomu xaram la yaay ji kooba la caga bu mag la boo déggee yaay ji ni muy waxee xam ne caga la Tida ñi nekk almadi ñépp xam nañ ko koo wax booy bi dëkk naa ak moom booy bi kat naa ko ñépp a ko kat parce que day màndi di taxawaalu amul fu mu dëkk kii boo déggee vocalu yaay ji ni muy waxee man di saaga nga xam ne yaay ji kooba la ay cagalan man xeexaluma bambali pour moo ko katt wala katt ko de dama ne la bambali sekk moo ëmbal wala ëmbal mais daal vérité yi ma leen wax daal loolu la defoon nañ test DNA ñu ne ko doom ji bambali sekk juru ko léegi bu fekkente ne doom ji nag ah test boobu ñuy wax def nañ ko wala defuñu ko moo ëmbal wala ëmbalul loolu du ma wax ne bambali moo ëmbal du ma wax tamit moo ëmbalul ndax sama yónnewul ci bàmbaali sama yónnewul ci kenn man damay waxal dëgg te yàlla tax amul fara amul fara day damay waxte sunu borom tax bu ma doon bu ma doon place su Bambaly bu ma fa nekkoon booy bi ne ma yaa ma ëmbal ma ne ko ëmbaluma la parce que ñi ko katta bëri koy bu ne nga encaissé ko gel bi jël na koy ci lëf koy ci nopp koy ci paxu bakkan koy ci bun koy ci poqutaan turu bu nekk ci yaram bi bu dee am na turu rek koy dugg na fa léegi mu mën a yeewu rek ne Bambaly Seck ma ëmbal lan moo tax Bambaly Seck ba mu lay katt woowoo média yi bu fekkoon ba muy koy bi ba mu koy jël di ko dugal si biir data bi ah woowoon ngam ngóone ngóone ne salaamaaleykum waa okki dégg mu koy waxee sax waaw ñu ngi leen di jaajëfal ah mbokki mbokki internet Dakar Dakar xaw ma TV waaw ñu ngi ñëw ci ci mbirum katt mi Bambaly Seck ak Tida waaw Tida nee na Bambaly sekk katt na ko tey waaw léegi bu doom gi màggee bu juree doom ñu mën a xam ne Dakar TV demoon na fa doom ji judd na waaye nga bàyyi ñu katt la xoolal. ban la kattee ba tey quatre ans lëy boobu katt moo yàgg quatre ans ban la kattee quatre ba tey doom ji quatre ans ngi nii nga denc sa lëf joxe sa lëf ci àll bi katt gi développé un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois neuf mois doom ji juddu quatre ans nga doog a woo mbokki internet Dakar Net TV yow yaa toj sa lëfal ndey waay gars yi damaa bëgg ñu waxante dëgg damaa bëgg ñuy waxante dëgg fii jigéen gu fi ñàkk fayda ñu def la ko fii jigéen gu fi ñàppi sa data katt la waaw jigéen da ngay am fu la xanaa xamoo góor mën na laa jël kat la siiw moo leen yóbbee lii xam nga ne Tida du jël ab maçon wala ab surga di ko jox lëfam lii ak turkatu mbalit pour mu koy kat déedéet danoo bëgg di siiw bëgg a bokk ci faramaarin gi bëgg ko am xaalis sëyeetu leen te yàlla tax alal ngeen di sëyee sëy yépp alal la alal la ko lal moo tax kon ci takk tey jox la ay million boo tasee da ngay woo mbekk internet Dakarnet TV ñun ñu tiimale la micro ngay jooy naan sama sëy bi nangam nangam katt leen seen ndey bu leen ñu yab yéen jigéen ñi damaa bëgg ngeen di toj la fal ndeyam di wax jigéen ñi dëgg tënat amuñu kilifa ay doomu xaram lan sëyu intere la ni katt ndeyam sëy du du sëyeeg maçon du du sëyeeg surga du du sëyeeg oode du du sëyeeg jàmmkatu dànk du euh, du du sëyeeg baykatu carotte du du sëyeeg baykatu tamaate wattkatu pom waxuñu ci moom dara du buusu ndox du jaaykatu socc du du kew du darkase ñoom daal na nga siiw rek am xaalis am tur seen lëfal ndey li ngeen bëgg dafa yomb li ngeen bëgg dafa yomb léegi nag boo jógee jël sa data pasar pasaree ko ban katt la ba sa data bi wëlbati ku mel ne géej guy jógee Mali nga toog a woo mbokk internet Dakar Net TV nag tim micro bi nag bala maa dee nga def sa njaaxum nag bu ne ñungu jël sa yaay jële ko jël sa yaay muur ndayam nag mu musóoru mel ne ku jóge Éthiopie toog naan sama doom ku baax la ku yiwu la demeewul nii nii la duggee nii la yow yaa mën a duul sa rab ndayi loolu damaa bëgg xoolal damaa bëgg bu leen ñu yàpp damaa bëgg ñuy waxante dëgg bu leen waxee ñu neen waaw artistes yi dañoo yaakaar ne buñ la jàppee comme fans war na laa mën a kat déedéet am na ñoo xamante nii kenn mënu leen a kat am na ñoo xamante nii goree di du leen tax a jaay seen lëf dañ leen mën a dimbali te yàlla tax moo ne leen a dimbali nga bàyyi leen ñu dem lu nu goree di goree di du ñu yaatal seen tànk di la jox nga ciy dugal sa koy bi pour lan pour lan yow en tant que jigéen nga mën a joxe sa lëf pour lan yow koo xamante ni takku la wuru laa sax laal sa cuus bi bay lamb sa taat bi waxuma laaj nag nga ubbi say tànk yaatal sa data ba mu toll ne estatu San Siro bu Milan bi naan ko dugalal say koy kooku yaa tooñ sa bopp bu lakkatee yaa tooñ sa bopp jigéen dangay ngay am fulla am di dignité am valeur am gëdd ci ca bopp yaa ngi dégg nit loo siw siw siw bu mu la jaral ngay sa data di ko ko jox da ngeen a war a taral seen yaay yeeg seen papa yi sagu jigéen xam nga mooy lan takk la andi la ci kër gi nga fees dell nga fees dell suñ jógee naan ah moom de ku baax la nangam nang mais doomu biiral doo dégg lu baax foo sëyi doo fa am lu baax doomu kunu ëmbal du dégg lu baax ah man li ma gën a metti sax du yaay ji mais li ma gën a metti mooy ah doom ji tey jii su màgg